maa ngi beral nuyoo également ñu ma bokkal plateau bi waaye di nuyu mbooleem téléspectateurs yi eh, yu suivre euh, la 7TV rawatina émission bii di Allô Sénégal ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dalal ak jàmm yaa oustaz tey lan la ñuy waxtaane tey nag ñu ngi waxtaan ci birrul waalidayni wa uquuqul waalidayni maanaam. déggoo ak sa ñaari waajur ak dëngoo ak sa ñaari wajur ak lu ci nekk lu mën a jur mm-hmm. ñu tàmbali ci déggoo bi déggoo ak sa ñaari wajur mooy li yàlla subhaanahu wa taala sant doom doom bu ne ndax euh, yàlla sax xam nga ne euh, ku mu kontaan ci yow yaakaar naa sa xel war na dal mm-hmm. yàlla ku mu ne kontaan naa ci yow gërëm naa la yaakaar yàlla nee na pour mu gërëm la pour mu kontaan ci yow il sa ñaari wajur dañu dañu lay gërëm d'abord ridallah fii rida waalidayni wa suxtullah fii suxtil waalidayni boo bëggee dë ak yàlla am ngërëmal yàlla yàlla kontaan ci yàlla moom bu kontaanee ci yow mooy sa affaire li sëñ Mansour daan wax bien nga fii bien nga fële mm. yàlla mm. ku mu kontaan ci yow da bien fii bien fële jëm loolu nag pour nga am ko pour yàlla kontaan ci yow faw sa ñaari koy jur dañuy kontaan ci mm. loolu mooy rida waalidayni wa suxtul waali wa su wa suxtuhuma wa suxtullahi subhanahu fi yàlla subhaanahu wa taala boo dëngoo ak sa ñaari way jur mere na boo fexee fexee fexe ba tàngal sa xolu ñaari way jur yi ba kontaan ci benn yoon na lu óor na yàlla kontaan ci yow mm-hmm. léegi oustaz way jur wu dëddu àddina mm-hmm. alors que yow doom bi peut balaa mu génn àddina seen diggante ñaga sonn tu n'as pas eu le temps defar ko balaa muy dëddu àddina mm-hmm. maanaam mu dëddu àddina ak ak mer ak mere wala ngeen xuloo boo xam ne jubóowale ba mu dëdd am na foofu noonu lan la l'islam euh, gën a chance mm-hmm. ci àdduna mooy ku ak ñaari koy juróom te fexewula euh, rectifier loolu jegeñ leen leen xàq ba ñu wan ko ginnaaw ba nekk ci biir suuf bokk na ci ñi gën a ñàkk chance ci àdduna parce que fi léegi loolu fan la koy réglé parce que léegi ñoom dëddu nañu àdduna ñu ci biir suuf seulement nag am na day dama ko teewluwul nag teewlu ma ko fi ñu toll waaye xëy na bu ñu dellu soit ñu ñu dem am na benn naafila mhm. boo xam ne daje naa ak moom mhm. naafila bi li ñu ci wax mooy képp koo xamante ne euh, wóor nga la ne sa waajur sa ndey wala sa baay mere woon nañu la maanaam bi ñuy dem bi ñuy dem barsax daal yóbbu waaye nañu mere wala jéppi la ah wala ab sànj ci yow boo defee naafila boobu jox leen addiya ji maanaam jox leen yool loolu dina dindi. Euh, mhm. xàqu ñaari waajur dama ko teewluwul nag. Mhm. dama ko mën a jaxase mais incha allah danaa ko programmé. ñu gën ko waxtaan bu fekkee thème bi du loolu. dinaa ko indiwaale ne leen naa fi de bii kat wax nañu ne ku dëggoo ak ñaari waajuram ba ñu jóge fi bu ko defee jox leen yoon bi àq ja wàcc. macha allah Pape. Euh, mais Pape xanaa nekkul ci plateau bi. Ah, mais diggante diggante comme yow kii ñu ñu ko dégg. dégg léegi. fexe ba kontaan loo sa aw quoi. mais mais mais ak xam nga dañuy wax ak aussi. Mm-hmm. ci diggante ak wéyjur wéyjur ak doom. Mm. mais bu bu bu dee c'est le contraire aussi loolu loolu mënul am c'est-à-dire que doom tooñ euh, wéyjur tooñ doomam. loolu ah kay ah kay waajur dina tooñ doomam hmm. parce que bu fekkente ni juruloo ko fi nga ko war a jure tooñ nga ko hmm. mooy mooy un enfant est légitime xamante ni dangeen ngeen a yoolo moom gaña gañoo rek kii ba ngeen ànd yéen ñaar ba xale bi juddu xale boobu tooñ ngeen ko tooñ bu rëy goo xamante ne kenn mënut a estimer tooñ bi ngeen ko tooñ ni mu tooñ parce que ci l'islam déjà bu gënoon a jàng alxuraan ci dëkk bi ëpp nekk mufti bi fi ëpp xam-xam kenn du ko def imam bu ñu témoin dañ koy teggi mm-hmm. yow way jur wu góor yi boo fi bàyyi woon di milliards de euros du ci du ko doon du ci doon du ci doon un franc alors que frère am yeneen frère am yeneen sœur yi nga xamante ne ñoom da nga takk seen dañu judd ci boobu ñoom dañu doon ah oui et doom la comme. ci l'islam du doon ci l'islam mm-hmm. dana doonu ndeyam kooku doom jooju dina doonu ndeyam un enfant illégitime dana doon ndeyam na du doon baayam baayam du ko doon mm-hmm. mais mooy ndey moom ndeyam ñooy doonante parce que islam nee na moom xamulu ko bàyyi mm-hmm. ndey nag moom xam na kooku tooñ nga ko wala sa doom bi nga xamante ne yarul tudde ko tur bu bon tooñ nga ko wala tooñuloo ko sa doom bi nga xamante ne yaruloo ko sa doom bi nga xam ne jàngaluloo ko sa doom bi nga xam ne bu feebaree doo ko faj mais kooku ëllëg yomal xiyaamati da ngay am ak yàlla subhaanahu wa taala mi wax ci alquran ne ëllëg yomal xiyaamati di gis bàyyi koo xamante ne dafay jaamu yàlla di julli di woor di natt asaka di saraxe lépp lu ko war ci digganteem ak boromam def na ko hmm. mais nag li ko war ci ay doomam li ko war ci digganteem ay doomam def ko hmm. def seen xaq hmm. ëllëg yomal xiyaamati ñu ñëw ba koy ubbil buntu aljana yàlla nee na am lu woote ca ginnaaw ne waqifuuhum innahum mas'uluuna eh góor googu ne leen ko mu taxaw parce que ay doomam ay njabootam ñu ngi nii ci ginnaaw. ne mm. li ñu nekkee woon ci àdduna seen baay moo leen moo leen ko tegoon. ñu ne delloo si ko ñu àtte ko diggante ak ay doom. Mm-hmm. kon ak kon ni way jur amee xaq ci doom noonu la doom aussi amee xaq ci way jur. Mm-hmm. boo taxawul fi nga war a taxaw féete woo fi ko war a féete wala nga amen ko ci an ci yenn amin yi. def mm-hmm. gàddu ko. mais doom bu ñu yar ba mu màgg ba am peut am alal je ne sais est-ce qu'il mu defal euh, ay parents c'est obligatoire wala c'est pas. là là c'est obligatoire. Mhm. force la force. bu ko neexee mu ne moo man bon def ngeen li nga war def def man mun naa demal sama bopp. wa qadaa rabbuka an laa ta'budu illaa wa bil waalidayni ihsaanan immaa yablughanna indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wala tanharhuma wa qul lahuma xawlan kariman waxfid lahuma janaha zulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiran maanaam yàlla subhaanahu wa taala nee na bul jaamu kenn ku dul man nag boo ma jaamu ba noppi nag na nga fexe fexe ba na nga topp sa ñaari waajur te na nga leen gërëm mm-hmm. moo xam ndax Euh, kenn ci ñoom moo fi nekk ba nga màgg wala wala ñoom ñaar ñëpp koy keneen. oustaz bëggoon naa daal bëggoon naa balaa nga fexe fexe fexe na nga fexe fexe fexe ba kattan bi ñu amoon ñoom. Mm-hmm. yow nga lompañ di soog a jug. xam nga bébé bu soog a jug dafa mel ni mbuus moo def ndox rek. Mm-hmm. boo téye bopp bi tànk yi lay yokk boo téye tànk yi. do kattan bi ñu amoon def ko ci yow bu ñu demee ba kattan boobu yàlla rocc ko def ko ci yow. léegi ñoom amatuñu doole. alors amatuñoo liggéey yàlla nee na yow nag yaa war a wëlbatiku nag yor leen comme ni ñu la yore woon bi nga nekkee xam. Kajoor. oustaz ñaan bu gaaw boo xam ne. waaw dina dina jubale euh, doom ak waajur sa gis nañu diggante bu ñagas a ñagas boo xam ne. Mhm. da ngay gis ne doom bi ak papa ji ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bëgg nga juboo ak sa doom mais kenn xamul. Mhm. lan mooy jafe-jafe ban ñaan moom moo baax si si situation bi. am na benn aaya alxuraan day boo xamante ni boo ko defee ci diggante ñaari nit lu ñu dëngoo dëngoo dëngoo dañuy juboo léegi mooy fa jamaanaahum jamaan fa jamaanaahum jamaan xam naa ne sax nag ñi ñiy liggéey ci wàllu baatin danañ ma xaw a mere mais ñaar jëkkër jabar bu dëngoo way juróom doom même bu dee ñaari seex yu dëngoo ñaar ñaari opposant yi def nii boo leen dugalee ci ba fa jamaanaahum jamaan dañuy juboo léegi léegi léegi léegi loolu euh, secret la boo xamante ne boo ko boo ko adadee ci turu yàlla mi ngi mhm. jàpp mi ngi jàpp amu ji la hëpp limali yahu dërin loolu mooy allahu muhammadu jibrilu képp ku mënta séparer entre allah et l'ange Gabriel et le prophète Mohammed ci diggante boo ko def jërëjëf yow Oustaz tegal foofu sa loxo ko defee jeudi prochain ñu àggale ko mën naa ne tey c'était juste une petite introduction waxtu wi xat na ñu bàyyi la nga tàggatoo léegi léegi bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi. waaw ah, xam naa ne gàtt na lool. waaw dañ koy dañ koy dañ koy kii. dañ koy def thème il faut ma dellu pàcc par pàcc. incha allah li ñuy wax rek ci bëgg euh, baax na nga euh, topp sa ñaari waajur ku ci def ñeneen na nga fexe rek ba na nga Mm. surtout ndey ndey moo gën a fort bàyyi téeméeri junni yoon jërëjëf dinañ ci ñëw gën a yaatal incha allah waaw ah, loolu tamit yooyu kat yooyu noonu yëpp ay pàcc la yu nga xamante ni dinañ ci gën a ñëw gën a gën a yaatal merci beaucoup Pape. Ah, merci beaucoup ah, à demain merci oustaz aussi tey kenn kolewu la <laughs> Kajoor à euh, Bamba Bamba merci merci à Babacar Allo Paris adresse bi Sandagala numéro bi 77 546 15 46 merci Ibrahima club Marème. Euh, Zal toute l'équipe d'Allo Paris ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax 10h seen flash d'information gars yi 11h Maria dina ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di la mi-journée l'avant-première quant à l'équipe matinale ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah yaa ngeen jëf.